أنت ربي وكنت لي بدادي Touba Taïf Karo nekk fii ci Grand Yoff en face hôpital CTO Taïf Karo nag Jibi Bamba mooy gérant bi ah mbokk yi Touba Taïf Karo nag kenn dootu leen ko présenté ci biir réew mi lépp loo doon wër ci wàllu karo yu baax gaawal gaaw ñëw ci suñu biir place bi di Touba Taïf Karo nga mën fi fekk ay karo italien karo espagnol wala karo indien ngeen mën fi fekk ay karo poli 1 mètre pour seen ay salon wala salle de conférence ngeen mën fi fekk ay karo décoration yooyu amul fenn ay carreau faïence pour seen ay cuisine wala seen toilette ay grès poli 60 60 ay plinthe wala ay baguette ba ci ay carreau parquet lépp am na ci biir Taïf carreau ay carreau espagnol 60 60 wala 40 40 marche escalier wala contre marche ah mbokk yi lépp loo soxla ci wàllu matériel sanitaire gaawal gaaw ñëw fii ci Taïf carreau li ci gën a neex mooy Taïf carreau defal client yi promo boo jëndee carreau yooyu dem ci kër gi yépp fii ci Taïf carreau nee maanaa la matérielu sanitaire ñoo la koy offrir defal la ko cadeau muy siège anglaise lavabo ba ci lépp luy taaral salle de bain waa Taïf Karo dañ la koy may moo xam kër gi nekk niveau niveau de wala niveau trois Taïf Karo nak am nañ beneen place bu nekk fii ci Cambérène ah sama mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi am seeni sànce fii ci Sénégal bëgg a karole seen kër ba mu mucc ayib adresse bi fii dong la ci Touba Taïf Karo gaawal jël suñu numéro téléphone 77 76 88 wala 76 923 33 85 ak Touba Taïf Karo ñooy number one ci wàllu jaay karo. nga dégg ma ko seen maam moom wax ju bari kii li muy wax man ak moom man ak moom si laam si laam laay wax ak moom mais si leneen lu orlaan bu ma ko yow yow ñaari xeer bi mën ta ñàkk de Modou maa ngi Serigne Saliou Mbacké billaahi wallaahi wa taala jëlem kii boo ju moom ma njëkk a song kii bu taxawee dëggal boppam xeex ak man lu dee ma rey nga naan moom ma njëkk a song yow sa sama wala ay dee ma rey de dama ne la yow boo taxawee dëggal sa bopp xeex ak man doo toog a def da ngay jaay bari wax kii dafa bari wax booy bi kii ma dem kii dama dem entraînement yi fu mu toll boo ko déggee micro mu naan mu nga mu mu nga jinne bi saa ma yow loolu jënti fu ma ne mais lu may jël sama combat lu may jël sama avance jël avance nit ki eh, foo toog naan mu ngi mu ngi fële mu ngi fële eh. du ma maye ne wala la wax na da ngaa toj nen du ma maye ne di nga yaaga toj nen nag gis nga doom bi moo tax doom bi amul heure heure bu ne mën ngaa jox kii dafa ak yéen li muy def ak joomal déglu fi wax la dafa ak yéen timis la ko joomal timis kii après timis mën a mën a boobu mën a joom mais li nga def nag joom ñu day waroon barki leeri alxuraan kii ñëwee ma. waaw a dama xaar gis nga bu arbitre sifflé kii taxaw dëggal boppam. barki alxuraan combat bi mooy gën a gaaw. sànq lan moo tax a ne ko entraîné woo topp mbedd Touba yi. ku gën a kii topp mbedd démb la ma si Jakarta barki alxuraan naan dërërër kii kii xam nga dalul kii bi. <laughs> Eh, yow ah, yow yow Touba moo yow mën nga Touba moo dee man xam nga ne. ah mais nag non non bu maa ngi nuyu ñëpp laa la wax. Mm-hmm. dem si ay sëriñ di ma jaxase ñoom ñi nga doon dem noonu. booy amee bu ko. maa ngi gërëm sama yaay maa ngi maam sëñ sama yaay maa ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm man nay toog sama gaale te te mu jóge gaale ñëw sama gaale te boobu si daa yow may wax sa gaale loolu yóbbuwul la fa daaru mar naan nga ne démb yëg si jakartaa yi bu ma woo eh, barki alxuraan nii la ma rombee su ma ñàkk tooy xib mooy bi booy dalalal sa xel mii sa takkaay yu bëri yi amee dénkaay yi rek doo noppalu yow xoolal kanam boo xoolee bëri da ngay xam ne man maa la wax képp lay ngeen xamul dara xam nga saytaane nga fi nga taxaw naan géwél yi lii di xas géwél yi naan barke alxuraan di xas géwél yi yow yaa la ay eh, lu tax ay eh, du ko barke alxuraan géwél yi la géwél yi dañuy xas yaa ngi dégg géwél yi yaa ngi ko daa la wax di béyee boppam ma sama géwal ak Alim Mbaye. Eh, yow si waa ji ma yow ak yow ay sax dafa bari. waaw bu arbitre sifflé le six. Ah. taxawal nga dëggal sa bopp. dëggal sa bopp xam nga ma la loolu. nga jël li ma jël sa bopp léegi. entraîné entraîné ñoom. yow maa entraîné nii. non non entraîné bàyyi sa kafalu bi bu am bi sifflé la. boobu dëgër nga bàyyi kër yu sedd yi. xoolal li ngay suul xool xoolal li ngay suul. amul laal amul laal. yow war nga bopp yow war nga yow war nga damaa teg la yow. bàyyi suuf mën na yu bëri yi nga teg. waaw vraiment la nga def vraiment am na bu ma la jàppee. ayca am na solo bàyyi sa bi. loolu la la la ki ëpp doole. bàyyi laa la bëri bàyyi kenn bàyyi laa la bëri maa ki ëpp doole. Ah ki dàq bëri. ki gën ku gën a daccoon. waaw yàlla bu ko yàlla seetaan yàlla na ko yàlla may ndax. amiin amiin gën a mbapat laalaale mbapat. mbapat mbapat kii yow yaa ngi lay njaaru. yow ngay am weer. yow sax ak kii kii di baax nga naan yow yow yow. barke alxuraan kii mu booy. kii Zawel mi muy wax ay sama rakk yii yëpp maanaam Zawel dafa lam. te daa ñaaw sa kii da koy bëgg a sant rek muy bëri mais kii. def signature bu gën a tàng. non lan laay wax damaa toj nen war a ñëw mooy loolu waruma may nen. sa nen yi dina xam. comprendre xaw ma da ngaa toj nen xaw ma da ngay baxal nen. mais booy bi kii kii nii yéen xam ngeen ne du yàqu du jënd kecax. moom mi du dara. comprendre mënul wees lu dul nii nii nii. teg la ay yére ñëw taxaw dëgg bu ma ko jàppee barki leeru alxuraan bu neexee yàlla la ko dal génn maa ko mën aller ak retour. mais bu ñëwee am na changement de. kii da ngay dégg muñal si kàttanu yàlla. ci victoire la jóge de moom plateau booy plateau. moom saya. la jàmbaar man bërekat laa la. <laughs> jàmbaar ay waxu saytaan. bu ma jaxasee

ay wax dalay yomb xamal la wax dala yomb da ngay dem si kii wax dem wax dem si kee wax. jërëjëf am na solo Adja Seck woote. waaw ñaata kilo ngay indi. waaw Fallou Ndiaye. yow yóbbu ngay sarloo. Fallou Ndiaye. waaw bolo bii yóbbu ngay sarloo yow. Fallou Ndiaye. waaw damaa di bolo. waaw yee. waaw di di woo tamit xam nga ma fi ak